jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ñuy topp ci 24 point com am nañu mbégte ànd ak yéen xam ngeen ne ñi ngi ci waajtaayu ko màggalu ko Touba rawatin nag taxawaay bi nga xam ne jamono ji moom la ñuy amal euh, ci dëkk bu sell bi di Touba ñi ngi ak Ahmed euh, Saloum Dieng euh, bokk ci commission bi nga xam ne rek moom moo relation extérieure ci màggalu ko Touba gi Ahmed Saloum maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoog ñi lay topp ci 24actu point com bismillahi di nuyu mboole seen mbokk yi nga xam ñu ngi topp site bi di waa Sénégal gépp leen euh, ndokkale di leen ziar di leen euh, ziar ci weeru tedd bi di weeru safar ak waajtaay yi ñu nekk di waajtaayu màggal Touba. Euh, nuyoo bi am na solo yow wax naa ko sànq ci bi ñuy tàmbali yaa yor relation extérieure teewaay bi nga xam ne réew yeneen réew yi daan nañ ko teew ci màggal Touba solo si laa bëggoon nga dellu si. waaw xam nga ne at mu jot depuis dix Euh, bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Bachir euh, yor na euh, commission d'organisation Grand Magal Touba at mu jot dañu doon am ndigalu kilifa yi ci invité ay gan yoo xam ne ñu jóge ci réew jullit yi. gan yooyu aussi ay kilifa lañu daan doon buñ Moussa ñëw ñu dalal leen Dakar ba Magal gi des ñaari fan ñu leen Touba ñu participer ci jotaay xam-xam yi nga xam ne fi daan am saafonte xalifa bi découvrir dëkk bi ndax Touba dafa toll ci diggante boo xam ne àdduna war na koo xam. ndax ab bisu la bu borom defal Afrique defal ko Sénégal defal ko sufiyanke yi Euh, mu jot nag àdduna xam ko moo taxoon sëñ bi am siiwul boobu ñoo ñu daan ñëw yëg nañ ni bu ñu demee seen réew dañ fa vulgariser euh, yoonu murit même bu ñu ay murit aussi dinañ def témoignage yi ñu gis Touba te Touba ku fi ñëw lu baax rek nga fi mën a jëlee mooy bërëb boo xam ni dëkk bu nii euh, amul benn bërëb foofukaay jumaa ji gën a rëy ci Afrique nekk fi te jumaa joo xam ni état taxawala ko ONG taxawala ko benn réew arab defu ci financement loolu di ndamu lislaam di ndamu sufiyanke yi moo tax euh, loolu moo waroon gan yi di ñëw ren nag nga xam ne li xew-xew na euh, ba àddina bi ñëpp euh, kenn ku ne toog toog fa nga nekk lañ la wax mooy ne si chez vous loolu moo tax gan ñi am ñu mais fi may wax ak démb ak tey ñu ngi def benn colloque international xam nga chaque trois ans dañu daan def benn colloque international lu mat quarante pays di ci teew ñu ko daan defee Dakar ci méridien président daan ko tëjee Touba ren nag mu tombé troisième année bi ndax ñu ngi ko ren tamit ñu bañ a raté suñu calendrier moo tax démb ubbi nañ colloque bi ci Daaru Manaan par vidéoconférence il y a 13 ci euh, euh, par par vidéo euh, ne nii fii may wax ak yow ñu ngi waaj pour def cérémonie culture bi Cheikh Mouhamadou Bachir dañuy xaar pour bu demee tëj ko officiellement sant mbokk yooyu nga xam ci àddina bi yëpp bokk nañ ci colloque bi donc maanaam feebar bi am na mais teewul ñu ngi saafonte ak àddina di wax ak àddina ndax euh, yàlla moo fi indi seen seen lii ngeen am muy euh, jokkaay yoo xam ne fu di nekk ci àdduna rek mën nga cee wax loo xam ne fii ma toog nii àdduna yi mën nañu ko dégg kon nag euh, sëñ mu taxaw aussi insisté wane ni nañ ko def nañ ko daan defee maanaam xëy na daje bi mën naa a am mais saafonte bi mën naa am waxtaan bi mën naa am échange bi naa am comme ngeen ko xamee ren même cérémonie officielle jàpp naa ne du am conférence yi ñu daan waajale màggal gi fii ci kër Sëriñ Tuubaa gi daan am ñetti conférence yoo xam ne benn bi bu ñu nee suba la màggal benn bi ci guddig màggal benn bi ci yor màggal mais yëpp ren dañ ko annulé euh, ndax jëfandikoo waxi waa ko docteur ndax xam nga ne Cheikh bi feebar li mu njëkk wax mooy jël 200 millions joxe muy wàllu koppar ni dañ ci teg ñaan ndax ñaan mooy armu julit waxaane nañ ci teg nag jëfe wax ko wax waa ko ndax ñoo xam ni lu mu doon ak fu jóge jógee ak lu koy saafara pour tënku ci ñett yooyu yëpp nag moo tax ñu defe ko noonu. waaw xam nañ ne contexte bi ren euh, ak coppeeku am nañ ko buñ ko méngalee daaw ak ren seen tawaay lan lay doon. Hmm? ma ne bi changé na waaye buñ méngalee seen teewaay daaw ak ren lan lay doon. xam nga ku leen la gënal mooy sa gan ñëw ba ci biir kër nga teral leen euh, bernde leen comme ni ñu koy waxee saa su ne Touba dëkku bernde la dëkku teral la maanaam teral leen ci seen ay xewalu yaatu ci ci ni nga xamee Touba ci berndeel mais berndeel seen i xel ci xam-xam bu leer ndax xam ngeen ni xam-xam bu leer Serigne Touba li mu yor euh, li daa li daa jóg benn benn iranien waxoon bi mu ñëwee fii ni Serigne Touba euh, jamaa la bu àdduna xamagul kan suñu nam ñu war a fa baax de richesse la bu àdduna na xamagul donc gan yi ñëw gi ñu ñëw fii day neex ci ñun ndax ku ci ñëw fii rek découvrir loo xam ne xamoo ko woon ndax Touba li am fii amul fen ci àddina bi dëkk boo xam ne benn jaamu yàlla moo ko sos mu dem ba toll nii màggi nii taaro nii euh, lépp di lislaam jumaa ju toll nii na fi donc ñun li ñu gënoon mooy gën a ñëw waaye nag euh, dafa bokk ci ponk gëm yàlla yi bil iman bil qadar xayrihi wa sharrihi gëm dogal yàlla yi yu neex yi ak yu saafa safaan yi jeexal euh, lan ngay ban message ngay lancé ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di euh, jullit yi nga xam ne ñoo war a màggal si ci Touba ngir ñu méngoo ak sart yi mu ne Euh, ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw ci màggal gi rawatina ci mbas lancé bi ñu message bi ñu lancé mooy li si mën taxaa joxe rek comme exemple mooy takk na masque digg na ñëpp ñu takk masque Cheikh Mouhamadou Bachir collecté na 5 de masques Euh, dinañ ko séddale ci dëkk bi ci ay anam yoo xam dinañ fexe ba ku ñëw te takkoo masque ñu jox la nga takk masque bi euh, suñu borom subhanahu wa taala mooy moo ne am na al bëri te bañ a dimbalante euh, aussi wax ne al wiqaayatu xayru min al ilaaj fagaru moo gën faju loolu làkk yëpp wax nañ ko kon li ñu ñi mooy kenn ku ne takkal sa masque te laal sa loxo gel ndax bëgguñu ko fi indi feebar bi waaye bëgguñu ko fi jëlee jërëjëf ñu ngi koy sant baax di ko gërëm mu nekkoon Ameth euh, Saloum Dieng rawatina nag taxawaay goom solo nga xam ne rek mi ngi ko amal ci màggal ak Touba xam ngeen ne ñi nga xam ne dañuy jóge biti réew di ñëw ci màggal gi am na taxawaay boom solo boo xam ne amee nañ ko ci ñu ngi koy sant baax di ko gërëm sant Moudou Diouf mu nekkoon ci caméra bi di leen jox daje incha allah beneen yoon jërë ngeen jëf